ñi ngi waaj a ka fab yéeréem a kay bëgg a dem mi at di waaj a ka fab yéeréem a kay bëgg a ñëw at mii di dem yal na muy seereelu yiw fu mu jëm at dikk ak jàmm joppaku yiw yal na atum njariñ ak yërmaande daal ak i mbég ku nekk yal na ci am jàmm ak yëfam yu ko lew yal nay atum barke yal nay at mu gën ati at ku nekk yal na ci jëm kaw fam ñoñam jëme kaw yow at mi yal na nga far def gan gu ñépp gërëm teral la teg la ca kaw ngir sant rekk ci yow jullit ñi yàlla na seeni xol ni guy yi ci yow ñuy topp yàlla bu wér ak cant rekk di xew ren yal na diine ji jóg fawal ñoñam bu rafet yéefar yi yal nañu suufe suufe far mi selaw yal na jullit àtte mboolem réew yàlla yi nag sikkar si jëm kaw ñu naa askay diraama ka daw ndegum jullit yal na ñëw ren ñëw gu beppe gu fis ñu far bégal mag bégal góor ak jigéen a ci ndaw amiin amiina moo tee ngeen a nangu bu wér kuy gàntu loo xam ne àtteeg yàlla far ma ca daw lu yàlla àtte ci nun yàlla nay lu nuy tax a bég yàlla nay lu tax ñépp far nuy ñeeke yéema kanaw lu yàlla àtte ci nun yàlla nay lu nuy tax a bég yàlla nay lu tax ñépp far nuy ñeeke yéema kanaw yàlla àtte sunuy mbir jub ñu teewe déwén te gudd fan fekke mboolem cant guy xala ñëw doon ñu buur ak i baadooloo ki jaam ak i gor ak ceddo ak sëriñ ak góor ak gone ak i jigéen te guddalal sunu fan wii te ñu faw ca kaw mboolem ku nekk ca kaw may ni ngënee la kiteen yaafat la dee faafexee kay wut ba sanku ji far jébbal nu nit ñépp xëy naa noo kawaaru ci yéen nu rekk moo waaru ngir feesal nga noppi njariñ ba noppi dox sunu digg ak gémmañ ak jëfi neen gémmañ gu jëm si ci nun ak lor ju jëm si ci nun nga fekk ko faw mu dal muy teg gi jëm ci ñeneen yaa mucc yow ci lu bon yaa mus la yit ci lu bon yaa tax ba aajo wu nuy laar ak galen ak reen yaa boole biir yépp am mboolem meret yi jubal yaa tax nu doy yaa tee nawet yépp am mbir yépp yàqute bon yaa def defarkat amoo kem fii amoo ko feneen nga dég nu dég faw nuy santante waxtu jot te bokk gudd fanuy saa aajo man du leneen xajal ma saa aajo ji ak aajo juy xala ñëw te bette nuy mbég yu kenn dul dox di foog ak seen te dolli nuy mbég ak yi ndolleen te dolli sunuy gëm ak sunu yar nu sax ci jag te kenn bañ a béen na tee ñi jant ak mbég naa putt putt fi nun ci sépp saa nuy teral góor ak gone ki jigéen budul ko nag la ma déggoon jëkk tey ci lu jub ma topp saa njëriñ man tey wéy di wéy ba ni mes budul ko nag la ma déggoon gaaye jub di ko wax ma jekki jekki ni mes kenn dootu gis ku ma gis budul ko nag la ma daa diglee ko wax ci lu jub xam naa ni lëf du ko jar ngir kem ma def lu ma rus budul ko nag la ma daa diglee ko wax ci lu jub xam naa ni lëf du ko jar ngir kon ma def lu ma rus budul kon ak sàmm ngor ak sàmm wëllëre it ma wax lu ñépp ni xaaloo moo ko xam li lembax budul kon ak la ma dee faa dox di dégge lu jub ma def lu tax penku ak waasoo bokk ni mas budul kon ak li ñu naa cay baabakar ak a jub ma def lu ñépp ni njekkar am na lii gën a fés lu jub li ñuy wax ci man ñi fawu far na ma nëpp ba xam ni man mënu maa def sax lu ñaawati bis xanaa ma jekki defar muñ ñépp ci yàlla bu wér te xam ni àddina tiis ak coono rekk a ci des foo daw ba dem fa banaa fii genn lor du fi am nga teeru fay lor faral far muñ te jàpp ko fas mu ñuy garab faral doomam ni cell te sax te gëmm sàq mi wan naa lay naqar ak i des loo xam ni boo ko wannee raw lu bon jot yiw du neex a fag wan wannal merte muñ ko la xas mi yàlla tee sag tawat ak nëbb jëf ju rafet di mucc kay muslim moo gën jóg di wéy ban ñes man day damay ñaan akay yaakaar akay séenoo lu man defew aka am may ñaan akay séenoo ak baax a sedd sama xol guy waaye du tee bu may bon ak bu ma baaxee lépp may séenoo li yàlla am ci ngëneel ak ay njariñ duñu jeex bu may am ak bu ma ñàkkee lépp may séenoo koo xam ne day jàpp am noonam ni tegg ca kaw akal ku koy sopp war nay sant kay séenoo sëñ bi laa sant ngir mootee ma dëpp ba tey moo wan sama xol lu tax may jaaba kay séenoo gis naa ko xam naa ci moomas lëf dinaa ko biral ngoram gu réy gaa waral koo seeru muy séenoo gis naa ko xam naa ci moomas lëf dinaa ko biral ngoram gu réy gaa waral koo seeru muy séenoo du topp kenn du digluy wax du jàpp lu bon du fekke ay ku ko xam loo bon bonit séenoo yàllaa ko tax di def ak yonen ba sell na jëf du bay ngirub ane kay denkal akay séenoo jógal liggéeyal ko tey daw ak tayee la ka bañ ku koy liggéeyal mu yët ko añ balaa séenoo bu dul ko nag yërmandeem ak sellalam gama xam giñ naa ni kenn dootu gis may sonn kay séenoo diirub li may dégg jëmmam jee ka xëy di ko gis bari ayib duma tee yaakaar akay séenoo xëy benn raw jépp lor jot jépp waaju nu raw baraw ko fopp te gudd fan la nuy séenoo gaa yi tabax gi tabax man xawma seeni ayib ku xëy defal sa sëriñ lii tax mu far sa ayib ñoo mag di wax marxaban ñoo mag di wax jërëjëf ñoo def lu jar jërëjëf ñoo def lu yéemu ajab kañaana bon moo waral nit ñépp nekkuñu tey yéema kay waaru naa cay wii de fii naka jub jaaraama yéena rafet jëf yéena def lu ma saf yéenay murit yu ma saf yéenay murit yama mag ku wax lu ñuy sib ci yéen ak seeni jëf du ko xam ku xam du wax la ci yéen ak seeni jëf lu ñu sib koo xam ni teg na mbiram teg ak juram ci loxob sangam di aw ndigalam saytaane dootu ko ngëp saytaane teg gina leen ak seeni jëf amatul ci yéen yoonati seenu sang yéena ca lab moo lab ci géejug boroomam yéena lab ci gogam ku nekk wéy na ba lab ci cant kem du xarab yàllaa ko jox lu ko doy moom it mu jox nu lu doy ku nekk faj na sa lor jot laa ki cant ci ndab tabax gi yàlla na mu ciy tàbbee ka génn ka bég ba yàlla àtte mu ràpp ak jàmm lëf bañ a jib tabax gi yàlla na mu ciy tàbbee ka génn ka bég ba yàlla àtte mu ràpp ak jàmm lëf bañ a jib te yàlla na muy dund kay doyloo ka am yu nu doy te yëpp ñépp dugg xaw ak ëree na ku sëpp te saa fi jot sunu digg ak ban ba yàlla na fa gën ñuy mucc kay jariñoo koy am ñu mucc ayib sëriñ si yàlla nañu dem yéefar yi yàlla nañu dem taxaw ca xol ñu dàkkul ñépp sàmba sa be waa penku yàlla nañu dem waa soowu yàlla nañu dem defar ko ñibbeeku yiw jàngab wu dee ci rëbi ku nekk yàlla na ca dem def lépp lëf lu mu man ñu yokk caw fanam ak jàmmam fegal ko sobe yal naa ca def lu ma man yal naa ca def lu ma am yal naa ca def ku ñu dul gis muy yaboo ka yabe te yal na xaalis di tuuroo tuuru ñépp di am lu ñuy musal lu ñuy tey tàbbal te kenn du lebi li dee ci am ci jumaa ji jar na tey ni rajax sa bopp toj boole sa yuur ak simon di tabax sëñ bi yeemate may ma farlu waxtu jot musal ma ci nelaw ak càggan kobat mam wi yërëm ma teete ma dee yang man fu kenn newul yóbbal ma yóbbu ma def ma xej ji faw bu rëy te daa nga yee nit ba muy def man nga xëy ni ko yee bu loolu am sama diggal yow te kat du ma jey musal ma ci jey fegal may nax wutal ma lu wér sama murit nay soree kii mooy te ànd ak may samay murit nañu yokkuk baax akuk bari nag may jëm kanam aka way ñuy jëm kanam aka way fagum jëm te ki ndolleen mbàkkeloo ma samam te may nu meewu ngërëm moo xam ni nam mu la way man bugg naa ci yow ak saa lépp tëj na ci yow te tëj sa bopp ci man may ndab lu set la nga duy sa kër mu am ñag bu deeful bëtt deefu ko tëb ba képp koy ne ca biiram am njariñ ndaw ay mboolem sunuy kër na fees ak nit ñu baax ak yëf yu am njariñ sunu diggante ba te du fay na jant cant ne tel ak jàmm fenk bu wér ci sunu digg ak yow ba mboolem nit ñu waaru ni cey ñun war nanoo boole tuuba cant ndaxate nu raw lu bon te jot ngërëm ak ndolleen di jaaba kewi sëriñ bi yow ki amee xar baax ak kiimaan sarax mu dëggati ay xar baax ak kiimaan ku mas ni ñokket fasoo feeñal ayib gi ci nun nga dal di nuy dikke ay xar baax ak kiimaan budul ko man yow ñu gis bon gii ni gumm ci man yaatee ñu seere ci man nii bon gu doy kii maam sangal sama bon te sangal ñépp seeni ayib bu kenn seeru lu bon yow daala man kii maam xam naa la sange sama bon fab la sange bonu ñi lay gënal ñi ma doy loo dolli nuy kii maam may noo ci xar baaxi mbir yoo xam ni bette na ak kiimaani cant yu rëy doo jeele yow kiimaam mangal lu ñépp ni ngéejëg mucc faw gu wér ni xëpp benn ci nun yaaman lu doy kiimaam nun noo di say band feesal noo di dell ci kun nit ñépp xëy fekk nuy rembat ak yi kiimaam na ko yi feesa ki mbég kër gépp feesa ki mbég waa kër gi feesa ki mbég dell ak lu mat kiimaam ndimal lu rëy laa la ñaan ak xol bu sedd bu set ak fan wu gudd wu neefaal yi fanay kiimaan te saa digg ak yow ne wér leerit ba àjjana far ba ñépp naa di diggante mat ndaxam kiimaan yërëm mu wallu mu yow sag wall daala rafet day bette noppule neexit nag ba doy kiimaan wut leen a wut barke tey muñ yépp tiisa ku naaj ak xol bu seddee boroomam sàtte tiisa ku naaj yéene murit yéen a dëggal waaye yal na nu am ndamam te am lëf lu benn lar ñi ne gu la laaj jege na jëf ñi ne ngeenu coono yal na nu am teraanga joo xam ni jii day sax fi nun te du xaaj ñun ñépp yal na nu ndéegoo barke def njoganal ngërëm te def àjjana ak reere ndam ba ni faaj ñun ñépp yal na nu far ab dog bu nuy taxaraw léppum dog ak lépp lëf loo xam ni day taxa maaj murid ya daanañu waajas lëf ndigal sog a def te yéena ngi ku ci am sennas ndigal du ko waaj koo gis ci yéenit bu njël dee jot mu song ndigal tey wetti aw ñaqa kay nag bépp noona ka daaj bu bëttatee daara jéppit doo ca fekkati nit mbaa koo ca fekk dafay koo xam ni woppa ko taaj fasoo na maa def ci yéen ak ban ba cant gu tax yeneen ba bég yàlla bég saytaane mecc ni raaj yéen ak sëriñ bee waral may jiitu ñépp ak a gën budul ko nag seeni ndimmal ñépp bokk ma ñaaj ñun ñépp yàlla na mu mbar tey bar ëllëg bu rafet te raw ëllëg gaa ya fay bar yépp raw ña fa waaj ñun ñépp yàlla na mu bar tey bar ëllëg bu rafet te raw ëllëg gaa ya fay bar yépp raw ña fa waaj ma jox na fab wépp yu jébbal mu faw wutekul mboolem ñi dox sama digg ak wépp tiisak naaj tey boo bëggee am ngërëm tuubal te génne sa xol lu dul sëriñ bi le kon ngay gis mu sant la yow ndab boo bëggee ku ko duy jàppal raxas ba mu set moo ndab lu tax ku koy duy tee nga maa wuyu yow ak xol bu dee bëgg dunyaa booba xol wéragul mat naa ragal ba mu wér déggal ma wax jile yow ku ràgg faj ko ba ràggam gépp wér ni telan moo gën la koy taxa yokkug ràgg xam nga ko yow fexee la am ndab lu yaa fit wér rafet sa bakkan kon kuy duy dab balaa duy ndab duyal si la yow te loolu ndab moo di xol boo xam ni set na welas ba dootu daj lëf lu dul aw yiw sabab lu ko yow wallaahi man bëgg naa xol bii dama mënalul saa bopp lëf may ma xol bii mbàkke man nga ko yow xam naa ni man takk naa xam naa ni man tere naa xam naa ni it man nga maa sellal te maa ngi fi yow man ngaa raxas sama kër bii man nga maa setalit doo jeele mu këti saa bookum ndox ak xeme yow saabon gi yëg naa ko yëg naa lott gi ma dalit moo tax ma boole samay mbir yépp jox la ko yow baaxal ma may ma sa boppal yàlla ak sa ngërëm te yor sama xol ba dootul bëgg lëf ndara yow li naan yow nag bonoo lottoo te yéene nga am sarax ma ngir yàlla mboolem yiw wi nekk ci yow foo yëkkatee tib sarax tallal ma booba sarax ngir lott naa maa ngi nii it tey yërëm talu yow foo bëgg a dem na nga wut loo yóbbaloo soog a dem kon boo demee doo fa lor yow nit te doo fa loru kuy dem te yóbbaalewul yóbbal bu doy fa mu jëm kookee du dégg du déggal ngir day loree ka loru yóbbal bi nag moo di fàggub yar tewal mburu yor koo dem di may koo fa gis ab yar di mës sa mburu ku nekk war na ma balaa dem fa bi yaram mburu yor ngir dikk fenn di waxtaalal du xeeti yaru ku nekk war na balaa dem fa bi yaram mburu yor ngir dikk fenn di waxtaalal du xeeti yaru yóbbul yaram mburu boo dee tukki kon danga bég bégal barab ba nga jëm ngir doo loree ka loru murit bi àndaara kub seetoo ngi nii laxasul te dal di natt sa mbir fab seetu bii seetoo sa xol bi boo ko gisee muy daj lu dul sa sëriñ xamal ni buura la góor lii doy na ak seetu lu yàgg yàgg bu dootul daj lu dul sa sëriñ buural nga àndaare ndam yow far nga di seetu mboolem murit bu fasoo xam ay mbiram na mu day seetoo ki àndaara ngi nay natt kay seetu yow Baabakar dëgg bul ñee kenn jur gu bari mbaa kër gu jag ak i soxnaa ki murit yu bari la dee fi ñee ban ba ak yonen ba ak ña ko roy dug jur du ay kër du ay soxnaa ki nit ñu bari te xeel la dëkk sa biirub dum du yow ci ndigal kon lor ju jóg mooy la mooy saw nit te mooy sa barab texee la dëkk sa diirub dund yow ci ndigal kon lor ju jóg mooy la mooy saw nit te mooy sa barab sa xol na tedd ci man saa xol na tedd ci yow teeg ëllëg yaa xadiimal mustafa wuyu ma loo xam ni daa nga ko sàkkoo kay mébét ci sa kok yal nang ko làqe ci man làqa ngërëm wuyu ma teeg ëllëg waaju dul yonen ba yal na la ñee te jëpp waaju fi dul yow ban ba yal na nu ñee yàllaa la def kenn doo am ndend jàpp nu def ngën ji murit bu murit yépp ak sëñ si di ñee dalal di fab sa kurus say jikkaroo katasab lu dul li ngay jëf du ànd ak yow bu dee ganesee dee mat la dox di ragal mooy daala mat di ragal ak saa si wéy te defoo aw yiw ca soo sële saa murit bu dàqee yeneen fii yëf ñu génn xolam mu tàgg yu boroomam ànd akub sëriñam yeneen ci yëf yi ma lay wax nag xarit ñi ngi nii sa bopp ak képp ak lépp ak fu dee fi xalam kuy tàbbi taaxum ku maa dang sax du ànd ak nit njëgam nanguwul a tàggoo nag du dem du ñu dem njëgam ku maa da nga bañ lii gën ka bind aras subhaanahu jaayalug bokkaale jënd ngërëm jëjëm ci buntu ñu fab ay yat nikee bu mu ñëw luy tax mu am tee ko daw ndax ngën ji buntu nga jëm luy tax nga tàbbi ca buntu bi yàlla génn ki ndam lu metti metti defal bul sib lu lay joxi ndam te naaju mbay li mu saf saf muñ ko muñ gu rafet moo gën di xaaraani sab nawlee ka bëgg yëfam dërkël sa xol bile ak say cër sa sang bi kon sa xol di fas ngërëmam say cër di jëf ndigalam sa sang tëj ko ci sab xol bul nangooti mu dem ku sang génn xolam saytaane tab bi xolam sa sang tëj ko ci sab xol bul nangooti mu dem ku sang génn xolam saytaane tab bi xolam xol kër la gub boo ko seetee faw fekk ca la keloo ca fekk bu génnul leemu waayi kemam yaa ngi sa xol baa ngi nii nag dee ko seeta ka yër lu bon lu ciy dugg boo daqul mu def ko këram bépp murit bu fasoo jël ndam na génne xolam mboolem lu cay yar yaree kay daw lu dul sëriñam ma jox ci Aminata dénkam bu sedd xolam ngir yàlla ak yonenam ak ban ba mii di magam yow soxna Aminata yeewul te sant gërëm cant ngërëm moo la war ak roy sa mag gi ci gëm koo teeru may ko sa yëf yow mii te naa gu yëfam jéggal ko gépp mooy am lii rekk moo di sa ndam ab sang day mun di jéggal ñetti mooy te du mooy tey doy lu doy lu gu wér wëllis ku ne ci yëfam ak càng ngi lu ko moy bu càng ndof la gu réy li ñépp jëm léegi def kook càng yow bu ca jëm jëmal ci yàlla te doy loo yàlla ak ndigalam bul fàtte it seen saa bis nañ ci baa ki mbiram bu nit ñi dee fàtte dee kay bég ci àddina ji fabal sa xol teg te dee ak yàlla yow te xalam bu nit ñi dee fàtte dee kay bég ci àddina ji fabal sa xol teg ci dee ak yàlla yow te xalam bul soxla wóolaf ci dunyaa ji lu dul jëfi yiw ku nekk day mujj wéet ak ay jëfam ci paxam boroom yëf yoo ko gis day mujj ñàkk yëfam boroomu nit ñoo ko gis day mujj ñàkku nitam loo saytu dem ba ko mbaa sax loola dem bala yow sa jëf ji nag du la baa kay dem te doo ko ba dem boroom yëf dana tàggoo ki yëfam bu rafet boroomi jëf nag du tàggoo ki jëfam fu mu jëm xabal sa jëf jile ngay àndal defar ba mu jag koo gis jëfam jala am lii rekk moo mat a xam alxamdulillahi tey sab dénkangoogu fabal mbooleem ko def li ci biiram am lu sedd xolam sëriñ bi yal na la may ak cant may nu ngërëm te may sëriñ abdurahmaanit lu sedd xolam ànd ak lu bon gën a bon ànd ak ku bon gën a bon day lakk nit di ko teg gàccee ku ay akutée lëndëm gawaa sax waray sax ak mbugal gañu sax xaram ko man naa waral ab jaama ñàkk garis noonoo la ñuy dëkke faw ak xol yu tàng yu ñor kooseeru muy bëgg a génn lëfte kenn du ni riis ak mooy la muy jurërë yi ak mooy jërul la mu jur lëf wécciwul ne ca naari yuux nee si la nuus riirig lu bon dëgg cib lal yàlla na génn ci nun xam yàlla dëkk ci nun nuy teggi luy juru tiis ma yaa ngi def jóori jóor ak jaagi jaag ak juug yàlla nu may wala ngaanum cant ñépp a ngi fuuf njariñ yi tuuru na xiiwal yaa ngi walwali nag béréb yi nee nañu dellañ mbég mu nit masa foop xel yépp dañ nañu biir ak biti dal nañu it fit yépp dal xol yi booloo sedd jàmm ngi boob ñun barke donganu dal ak cant donganu jot lu jar bakkan moo ko far jël jàmm wu xëy nanu ko yóbbal bu rëy bii ñu fab jébbal nu moo di xetub firdawsi yal nanu koy jaamoo ba dugg ca toog buurub aras moonu daaral xëpp nuy njariñam xëbal sunuy bañ ñu rët am gàcce bokk ni niit moo jàpp nguuram bi jébbal noo ki cant ak ndam notal nu bañ yépp ñuy suufee ka soof ak biig liigal na Firawna ak mboolem ñoñam ñu ni mes musal na Muusaa ki gaayam jëkk démb ki biig liigal na mboolem sunuy bañ yamb yépp ni mes nu des su mujje sunug lem noo ngi naan ak i koog penkoo ki soowoo ngi mujjëg lépp ndam ci sunuy yoxoo ki mbég ku nu daa gis xam ni tey du keroog jëmaa ndawas ndimal ak jàmm nga ne la ko yiw ñataa jamaa lee ngi may santoo ko def sama ndiit addina wépp ayam raw naa ko wépp yiwam jot naa ca am wala ngaanum ndam mu ñépp di fuuf ndegam dangay woote te ngaa woo ka bind njariñ muy silaa ci njariñ moo ëpp ñéppi njariñ woonaa ko yal na ni jaat ak jàmm man njariñam jox may njariñ yu ma doy jox ñii ma soppi njariñ suuxal na néegi njariñ ak bëkk néegi ngërëm moo ëpp sax tere sool ak banque fappi njariñ moo am lu faj aajo am luy dàq lor te amul aajoo ki lar yal na faj aajoo ki lor te jariñ moo am lu faj aajo am luy dàq lor te amul aajoo ki lor yal na faj aajoo ki lor te jariñ yow dee ko dimbandikoo yow dee ko sukkandikoo yow dee ko wéttalikoo ñoddee ko lépp njariñ doo faddu mukki gëtam teewal ko yow fi sa xol bu fadduwul xol bi doo bon doo fasee ki njariñ moo sax fi yow ku ko mooy day teewi saa demi saa saxal ci moo man digal kon lee nga doy la njariñ bu jóg fi yow senn saa bul jóg fi moo mati saa xamal ni kat sax fi moo may ndam di lépp njariñ moo saytu lépp njariñ wutloo ko lépp njariñ dañ loo ko it jëpp lor doy loo ko moo di njariñ yow naa ko jàpp ngërëm doy loo ko am lu ma doy mu dolli mag doy lu faw wa ngi yëf yi doy yi jariñ yow naa ko am mooy ci moom ak lépp lëf lu ko saf safoo ko saf ko mu sëf ma cant sol ma njariñ yal naa ko xam-xam gu wér doyloo ko doy ko bu wér nu faf doyante di santante ka sax ci njariñ ñeg baa ngi nii wër nu kapp ak jàmm yal na nu ñag bu wér ba wër àjjanay firdew si wër bu rafet saytaane yal na nu danda wépp tiisa ku ay nu sax ci jàmm ba dem firdew si dem gu rafet jugal na sax teg juboo sax jàmm sax ko ne jub juboo bu wóor ak boroomam faw lépp rafet yal nag jub ak jàmm ak jàmmoo ni dàkk fi nun lu sax ci jàmm ak jub ak jàmmoo gu wér gu rafet soppante yàlla na sax santante sax gu rafet jaam ak boroomam juboo bépp diggante rafet jëkkër jabar kilifaaku surge yàlla nañu sax ci jàmm daal ak ci jàmmoo lépp sax ci rafet sëriñ bi nun yaanu rokkat yaanu roofatu yiw yaa teenu af yaanu teexëy daanu yaa gën a baax sëriñ bi nun yaanu rokkat yaanu roofatu yiw yaa teenu af yaanu teexëy daanu yaa gën a baax doo fecci wëllëre doo bés kenn doo dige wor ku dul yow ak man a yam yow rekk rekk a fi baax ku dul yow ak man a yam day gindi deful rafet dagoote ci bon bonam yow rekk a way ci lu baax koo xam ni kii mas na noo xëy wàcc xëy nga nu yow wuutal nu ku kemam ciy saw defi naka baax bu dul ko nay yow nu xëy bis daanu jëll bu rëy tegal nga nu jëll dootum daanu yaa gën a baax fu mën a sebbi yal na fa sebbi fu ñàkk sebbi yal na fa sebbi yal na fi ceebo mu ëpp ceebo te gëni ceebo ñëw ak sëriñ bi yal na fi barke ak xiinu barke wàccewu barke bu màgg tabbi yal na fi xitti waamewu bette wu ñépp sante ba jiika tobbi yal na nu gën teel gënum nawet teel ñépp tëjël teel ndamal nawet bi yal na nu ndaanaan musal ci ay daan te def nu ndaanaan ci sañ-sañam bi yal na nu may ndox gàncax gi fet tax doy le mbayang ndox ñuy génge añ bi kilifa bañ tooñ surga bañu tooñ yabu sasak dooñ dëkk ci noppi ku nekk sotti jëf-jëf ju sotti te am lu sotti lépp di xëppee gopp yi sappee ñépp di tobbi saf bañ a sappi ku jub du sappi yàlla na sunuy tool nangu rafet lool feesa ñu jub lool della ki sappe yow yàlla wax ci yonen bi wax ci sëriñ bi wax ci ba fépp sebbi kat yi bayle baykat yi dufle xawute bégle yal na nu waxle yal na nu jëfle yal na nu fasle yal na nu farle yal na nu xejjal yal na nu ràccal yal na nu bàccal yal na nu farle yal na nu wayle yal na nu mayle yal na nu jañle lépp lu lëjle yal na nu jag lool yal na nu jub lool yal na nu gën lool ñépp te ñoŋle yal na fi seddi féebo mu xëppee ndam ba mu sàppi te bañ a sonle mu ne ca ñepp jote ca ñepp jiitoo ca ñepp jàlle ca jàlle yal na fi barke béppal na barke dal ñepp teg ci nu saf te safle ku barke wàcci yal na fi wàcci te fara fi wàcci gaayu nu sëfle yal na ñu wàcce barke te wàcce ñañu ko wàcce ci nu ñuy sewle yal na ñu wàcce barke te wàcce ñu ñu ko wàcce ci nu ñuy sewle yal na mu jub lool jubum nawet lool gën ko ne mbay lool gën koo lewet le nawet bi yal na yi bari ndox ak mbay loola njariñ tey dëgg ko dégle ubbil nu bunt buy jëriñ te daal di ub budul jëriñ te may nu tawféex ak njariñ sawab dugub ju bari lool xëpp nu gerte gu bari gu werte yëkkati përe te ñu ca kaw gaa yu bari ñu ràññi koo ràññiku lool foo dem ña ngay watee kawat soo féetewul foofa du wat soo féete nag foofale wat wat nga ci ji jamono lool fii ne yàlla nga fa ne foo nekk yàlla nu fa ne yàlla nu ànd ci lu ne te bari jàmm ak doole lool yàlla la farle ba nga wat ni nga nu farle ba nu wat feeg ëllëg bu ñu nu wat ci génn wetu waane nga lool yàlla la farle ba nga wat ni nga nu farle ba nu wat feeg ëllëg bu ñu nu wat ci génn wetu waane nga lool ni nga nu may wétalu biir ak wétalu biti wóor def na ko buur ak gaa yi buur di dimbalee ko dégg lool rikki def ñu mel ngaax moo xam ne ñii day wati ngaax faw te kenn du seeru ngaax mu ko watit diisal nu lool na nga nu may gerte gu diis ak jëf yiw ju diis a diis te lu nu bëgg nee ko nuus jox nu nu jël sant la lool adduna baaxal nu ci lool laaxira yéemul nu ca lool nanu ci yow lu jafe lool lu jafe yomb na la lool ña dee fi ñee teeg ëllëg nañu ñee teeg ëllëg te jox nu tey jox nu ëllëg lu ñépp naw bëgg ko lool def nu boroomi sutura te def te def nu buuri laaxira boole nu def ñu faj dara teeg ëllëg ñu tekki lool def nu boroomi sutura te def nu buuri laaxira boole nu def ñu faj dara teeg ëllëg ñu tekki lool xaranu fii ba àjjana xabanu fii ba àjjana rusanu fii ba àjjana te may nu xol yu sedd lool see mënoo ame ci yow teeg ëllëg mu ci ku yiw yàlla nu yàlla tin ci yow ba ca kanam tin la ci nun sër na noo amee ci yow teeg ëllëg mu ca ku yiw yàlla na yàlla tin ci yow ba ca kanam tin la ci nun nanga nu jàmm ki ngërëm ak i tiraanga ak i dërëm sutura nun daala ko am budul ko may yow dana bon nanga nu may kattan gu nuy sant sama yi nga nu may defal nuy barke ci mbay nawet bu ñëw nanu fa gën nawet bu ñëw may nanu dugub du lawe ak gerte ku sëb ba kenn du day ni nun dugub ak gerte ak sëbëku fan fàggul nu wërsëg wu bari ak fan wu sut fan yu bari ak gaa yu nangu yu bari yoo xam ne lépp lañu mën mboolem sunuy texe na jub sunuy biir yépp na jub sunu digg ak yooyu na jub faw musal nu yit ci gan dakku nu mboolem ku nu siis tegal nu service ak utiis bul bàyyi service ak utiis muy jëm ci nun mbaa ñi fi nun bu kenn am ci nun yoon ndare ko aw ci ngën ji yoon te yaa fi aw ci ngën ji yoon sori na ñedd ak mépp tam ñedd nanuy soree sori ku cay masit nanuy sori saaw te yow bu nu sori jigéenu def nu sangatam leeral nu leeral fu nu ne naatal nu naatal fu nu ne neexal nu neexal fu nu ne nuy sant kay fekke déen ñu nu la sant sant ren sant gi yàlla na raw déen déen di ñëw nanu fa gën foog te teewe ko ni ren doon mu xam-xam njëriñ bu ñuy tegal lu dul jëriñ faw ak ñoo di njëriñ ak yi ngërëm jëme ci ñun yow yàlla yaa yaatu te yaatu yërmande yaatal na yow mii ci yow sa yërmande abal na nun ñëpp ci jëpp yërmande tamay na nun ñëpp sa jëpp yërmande ku ne nga yow ku yaa ku yaatu njëggal yërëm nuy na ina yërmande ku njëggal ku réy nga yow ku yaa ku yaatu njëggal yërëm nu may na yërmande ku njëggal soxna ngi nii dooma ngi nii bijaawa ngi ñu boole am tey kooka mooy lu ñaawa ngi sopp nu nun ñépp te soppi nu ñu jub ñu rafetu tuuba ki jëf mu jëlu jub def nu ñu rëccu seeni mooy ñu dëggal baraw ñu rëccu seeni mooy ñu dëggal def lu ñu dëddu la la neexul lépp faw te sax ci lu la neexit lépp def lu ñu dul moyeti mukk lu la neex def lu ñu dul jógati it ci lu la neex def lu ñu lay sant ko gëm ñoo sant ñoo may sa bopp ñoo saxal ci cant koo ji ci nun siram yaxar na xoppiku xaral nu baaxati bu wér ba xoppi ko xoppi ñu mbéy wu rafet ak xariinu ndam wuy tax mu sangu ba doyal tangoori ndam xottil nu càngaay yi nga neel ak tawféex ak ngërëm ak barkete may nu tawféex sol nu luy tee nu gërëm te sant te may nu luy tax nu gërëm te sant tëjal nu bépp bunt bu ay di bawoo ubbil nu bépp bunt bu yiw di bawoo dal nu yërmandee ci keefi warga ak i peñ ak saako yi kafee ci surga ku nekk sant ko te sànni ko baluut mu sant bés ba sànni la cant guluut ku nekk sant ko te sànni ko baluut mu sant bés ba sànni la cant guluut luutal nu mboolem sum dal yi ci sa géej bu yow ba yépp ren batar mu ñu ni ngéej xol yépp yàlla ñu ne dell ak yàlla cër yépp sax ca la ak la yàlla yal na sunuy yoxani della saalis bulal ñu teg ca may nu diinu xaalis wet gu ne yal na nu ca mat sëkk ca riis feet gu nekk saqu yiw te bañ a ruus yal na nu sax dàkk ak yaram bu sedd ak xol bu sell bu rafet bu sedd bari ca firdawsi yoxoos ak sedd ga tëdd ca faw ak sunu jëpp tedd nga di sant yàlla ak gërëm gërëm lu sax moo dinu sant ak gërëm ngërëm lu sax nangul na yow yàlla ci barkem ña la gëm ñépp ak ci barkem gaaya mooy ca ña la gëm dañu sëriñ bi laa fa ban mbootam ruur sama digg yépp ay méppum ruur baaxam nga laa fa ba ci xar baaxam teg sama digg buur ak ku gis mbuuram teg namam guyee mugg rafet galaa ñege sama kër ak sama mbay ak lu ma jege xam-xam bu rëy bu am njariñ ba ne ca moom laa woye ñépp ak seen yiw jëme ci moom way gam way ca yàlla laa ñaan ak way ca ngërëm ak ngërëmam ak moom ak way ci wërsëgam wu rëy wu lew wa bari lool laa ñaane wërsëg wu ma lew wu bari lool doylu ga ak doyam gu wér gu sax galaa ñaan ak doy ak doylu gu àndul ak balaa ca doy ga ak doylu ga laa ñaan ak doy gu wérekuk doylu gu gën bàyyi ndey ci gépp keem ak yërmandeem ak barkeem laa ñaane keem ak yërmandeem ak barkeem ci yëpp yi wu mu defal boroomam ak yëpp yi wu mu defal moroomam laa naa tiime képp kuy sama moroom fa nit ñi ñëpp ak akay sama boroom baykat bu nekk la mu bay yal na ñu ñoŋ yasaati jàmm ak yëpp yi wu dëkk ci ñoŋ baykat bu nekk la mu bay yal na ñu ñoŋ yasaati jàmm ak yëpp yi wu dëkk ci ñoŋ buurub aras yal na nga wàcce barke sunun gu rëy ba ëpp bépp barke man lu waa penkoo ki waa soowu diim xool lu waa suuf ak lu waa kawit diim te kenn du wax dara ba tax ma yàqu kenn du defit dara lu tax ma yàqu musal ma man na ci lore nit ak jinne ak lépp luy lore te jox may jinni def ma ku lan nañ ak bët ak xalima dul mënal lëf ak saytaane lëf bu mu ma dal buy wax baree baree baree baree bari ba man ci man dara lu néew ak lu bari bu aw nit it baree baree baree bari ba man ci man dara lu tuut ak lu bari te yëpp ay wuy mën a néew ak a bari bu ma ca am dara lu néew ak lu bari yëpp yi it wuy mën a néew ak a bari bu ma ca ñàkk lëf lu néew ak lu bari bu jàngoroo ki dee ci loro baree bari bëlëb fi saw ma ca lu néew ak lu bari sang bi yal na boole ñépp sang ba ñépp sangu ku ne mel ni sang dàq na mar wi ba mu daw mu dàq xiif rafle wi it yal na ko dàq mu ni fiif sant ma war yal naa ko def te sax ca sax kuy waral yàlla gërëm te sax ca lépp lu ñuy bëgg defal nañu ma ko lépp lu ñuy bañut tegal nañu ma ko xéewal yi wër nañu ma man ni ndomba ñëw ma kuy faloo ko takkum ndomba lépp lu may aaju ñu jóg taxaw ca lépp lu may digle ñu bokk aw ca man lii ma am ak may la waaye du pay suuxal na sax bépp bi la géeye ko pay képp ku mën na dal di ñëw sant le ma dég le ma lëf way le ma lëf gërëm le ma man lañu may lépp nga nee la yërmande ngir baaxakook tabam nga nee la yërmande man lañu may lépp nga nee la yërmande ngir baaxakook tabam nga nee la yërmande mboolem ña bëgg sama ndam siggi nañu mboolem ña bañ sama ndam it sëgg nañu naa am lu rëy ngir fu ne am naa fa ku wér ku may waxal lu wér a koy defal lu wér yàlla tegal na ma fu nekk waayam joo xam ne jii def na ma faw waayam ñépp a ngi may waxal lu baax ak a defal fu nekk yéene lu ñu am man lañu fal man lañu may xar baax ndég ci àddina yu mel ni àjjana sama xol sedd na maa ngi ci àddina di seenu àjjana yal na mu sax ci mbég ba dugg àjjana xol yal na talli sax ci butt ak ñay yi ba nu bis ca kaw lalam ya ñay yi yal na noo am àjjana faw ak rakkam àjjana nag barke bu màggay rakkam yal na nu ngab rakk ja tey wut mag ja jàpp ca rakk ja ba jot ca mag ja yal na nu ngab rakk ja tey wut mag ja jàpp ca rakk ja ba jot ca mag ja ku bëgg a jël rakk ja nag teg ca magam naxat bi rakk nag moroomam ak magam yar bu rafet te joxe boppam bu rafet ñu xër duniyaa ca ginnaawam bu rafet waxtu wu nekk muy liggéey ka joxe te bañ a yokk bañ a naw la muy joxe mel ni ku seet buru ni cas wépp jiwoom yokk ci tey farlu ba tey fasee ki koom ab dëkk ni jaata ko dafa am buruujul juul bëyul te nara dal di giijal yee ko ca ndox ga ba mu yewu jar def nit te bañ koo dal di fam ni xër dana pajub aajo ca moom akuk fal moo ko yeyoo kaso na muy laajeek fal xamal ne xam sa bopp gën loo dégg gën lépp loo seeru li lee dig dëgg xamal ne xam sa bopp gën loo dégg gën lépp loo seeru li lee dig dëgg yegal sa ñaaru tànk ñii ci dëgg te bu ñu teggi kooti bis ci dëgg koo xam ni dencul ndare seen nas mbari joom te yori bor fu ne yu kenn mënu la miin koo xam ni dencul ndare seen nas mbari joom te yori bor fu ne yu kenn mënu la miin du toppandoo ko denc junni bëri góom te yoralul kenn lu dul yërmande moom yàlla nu kooka boole ñun ñëpp yërëm ci yërmandeem ak daraja yi ñamu gërëm te yàlla na wàcc yërmandeem ak sutura ci nun musal mu ci mooy ak ci sawara defar mu ci xar baaxam ak ci baaxam ci daraja yi ñamu defar ci baaxam xëpp nu ndimbalam lu dul xaaj ak a jeex ci daraja yi ñaam lu dul xaaj ak a jeex lanaa gërëm yàlla ay yonen ba sant sëriñ Tuuba gërëm ko te doy loo faw lii ñoo may kon yëfam fab ca laf jébbal la sant ca war ak doy lu moo rëy ku am ak doy lu am nga lu rëy te képp képp ku ñàkku doy lu ñàkk lu rëy ku ñàkk sant lu tuuti ñàkk sant lu rëy xamay jurub cant faw ak doy lu yal nanu xam réere jurub tawat ak bon faw yal nanu mooy ak réew a bon ku ko def ak may du rëy fi bëtam ku yeewu nag ak mayam day rëy fi moom ak a doy du teg sa bët ca ña seenu jur labal la nga am ci jur xarak gaynde ñoo yem koo ci gis dana rey tegal sa bët ca ña sa jur ëpp jur gañu am kon jàmm am gërëm ak santante am nga ni tey addina kenn matu cee ñee ngir kalal sa mu am ña dëddu addina wey ñoo mat di ñee ak a roy addina kenn matu cee ñee koo ci gis la mu am lu rëy rëyit xaaju koo doy ñépp bokku ni woy ndaw ñépp bokku ni woy mag ñépp bokku ni woy ku deek ñee ma nga naa fes ruq wuy sama ndey kuy mos lu faw mu xul kuy mos le faw mu xul addina moo di këru ay kenn ñekku ci ay ñun ñépp yal na mu doyloo yàlla am lu mu doy ni dàkk ci cant doyloo faw lii ñun may xam yàlla daal ak ragal koo màgg dëgg te ñoo waroon a jomba amit tey gaayi gaaye ko xam luy jombatee am di liy jombul xam gën a bon xamay la am solo biir ak biti yal na mu xam buurub araf def moroomam rekk a jombulu dul defub kemam loola mën naa ñàkk am mën a am lu dul di jëmmam ja loola may la jombu la gis caab la am gis laram buy moom a jomb ndaxam mayam gi nag li mu rëy rëy rëy amaana nga am amaana it doo ko am dig waa ngi ñëpp ci yam du yàgg yàgg ba yow ngay yàlla mukkute kët du yàgg yàgg ba yàlla yow wutal ngërëmam du yàgg yàgg ba yow ngay yàlla mukkute kët du yàgg yàgg ba yàlla yow wutal ngërëmam moo féete kaw féete suuf ak fépp féete ko yow ci jaamu faw wute sax ci cant sax ci mbégam bu yootu mukk palaasu bi yàlla jomb na lar bu nekk yootul nga neelam yow te ñaana yiwam moo tedd moo tabe mën naa fa bi yiwam wu mu am jëbal la lépp nga di jaamam bu saytu yëfam lu nekk mën na ko biir ak biti waaye du tax mu def la mukk kenam lii man manam bi ca jëm yàlla man doy na sëkk ak barke yàlla na mu jox mboolem lu jumbu la am ci wiiw teful sunu gëm moo màgg mbir moo di buurub dëgg yal nanu dëgg dagam bu bépp dagam ñee muy gërëm biiram nu ñëpp yal nanu raw ayub laram masa raw te am ci baaxam gi nag yiwub laram masa am sëriñ bi laa ñage saa bopp ak samay dëkkandoo te yal nanuy ñaga kay ñagloo kamay ñu na ñag yeneen bañal na ko faw ak yàlla gaayu badar ña boole koo ki ñagam wër kapp moo yëri ñag moo rëy te suturaaku may te moo rëy yiw moo ëpp ndam gaaya am ndam yépp yal na nu ñag ñagam ba yal na nu wër géttam ga yal na nu wër te yal na nuy joxa jox xontam ba faw waka ñag nun ñépp yal na nu jox xontam bu sedd ba xol musal mu ci dagg njël faw ak lu nuy xañ nag xontam ba yal na fi tuuroo tuuru tuuru gu bir te xëpp fee xëpp sax fee sax ñi boole nu ñag moo saytu xont ya ak ñakkat ya yal na ni sax xontam yu tedd ya jébbal noo ki bët yi nu ñag moo sedd xol moo këral xol guy yal na nu yor te saa su ñëw yal na nuy dëllee ka xont ak a ñag gëtëm ga yal na nu cay sax sax bu sedd xolam buy tax mu dolli nu sedd xol bu wóor ak ñag xolam ba yal na ne della ngeen ni guy ci nun sunu xolit sax ci guy ya ngeen mu gën ñagi ñag yal nam xelam dal ci nun njortam rafet ci nu nit yaakaaram it rëy ci nun muy bëgg ci nun dinu ñag yàllaa ko ñag faw ak yonen ba yal na nu ñag moom it ñagam bu mu tee gis lor bu gën ñagi ñag ku tee ngi dikk balaa ñëw yal na fekk nu am ndimal te bokk ca gaayee teewe ñëw gëtewu te kumte guy xala ñëw nun ñépp yal na nu koy teewee kawum faw a kay sellal te yokku ca gëm koree ki kumte lu ci yegteetu yal na nu koy teeroo ka màggal a kay teewee ka taawu ndamam te dëkki ak tamxarit ak gàmm lépp lu ci ñëw faw yal na mu koy teewee ka gunge mu dem rakat bi yal na ne xettit lépp lëfu lu nu bañ suunal nu cim kan mu deeful solli ñépp wedam raykat bi yal na ne xettit lépp lëfu lu nu bañ suunal nu cim kan mu deeful solli ñépp wedam bu dee ci bëccëg saxaar ak waxtu yal nañu nii yëtaale luy seral lu xol dolli jàmmi yaram soo leen digal jàkk néewub tukki yal nañu nii may may gu tax ñépp ñeenoo ñee ba ñoo ni goram bu jant dee fenk mbaa muy sootu yal na njariñ bawoo ca kay jariñee kay mus la ñëw ni jiri àll ak kër fu nu fuy tollooti yal na nu fay mbooloo yu sedd sunuy xol buy wër nu tilim buurub arak ak i xejjam yépp yal nañu sax ci nun te sax ci sunuy xol jox nu seeni ngërëm bañ yépp yal nañu ànd ak wa ay yépp ni mes banoo ki cant ci kaw suuf ak yi saf yaxoram bañ yépp yal nañu ànd ak ay yépp ni mes banoo ki cant ci kaw suuf ak yi safi ya xoram nun yal na nuy teewe gépp kum te faw waka um te teewe gépp koree kay taawu mbég mu ca am jullit ñi koo rey nu yoo jóg fay ko war na ci yéen wutal ko it dal bu sedd xol rafet na ci yéen dalam bu sedd ba ab xol moo di wàcc lu bon bañ caa xalam lëf te bañ caa def lëfit moyu leen bàyyi ndox ak bàyyi aw ñam nee ñi moo gën a sax woyof ci koor ak i sartam gaa yi déggati leen jàppal sa làmmiñ wi ak say tànk boo umatee tey damm faw sa gis bii jópp lii tëna leen di wax lu ay liw lak ay yiw gënul ci ku um di wax lu ay nee te yéesit lépp ay jalu leen koor ak lu dul koorayam foo tollu topp fa gën sori mu it moo fa gën daw leeni mooy sori leen yow boo umee amal yar boo waree amatil ab yar bu la mën a am yow mii ba tàggale leen taxoo ki teggiin a gën loo mën di dégg ak a gis tàggoo ki teggiin a yeesit lépp ràññiku leen teggiin a gën lépp day yokkee kafet lu ñu bañ te ñod di jàmm ndam ak barkeek yiwu yaru leen teggiin a rëy ku ko am rëy moo rafet ku ko am rafet ba dee ku ko ñàkkit ñàkk lépp te neen teggiin a gën mbaxanaa kiy dall moo gëni tér kuy waaji lëf lu ko mooy doonam ma saf ña la seen jullit ñi yal na nu am nun yar bu mat bu rafet buy tax nu jël ndam fa péeyib yàlla jël ko feneen te soo ma buuxoo ma sii soo ma lëfit danga ma yaatal xajal ci sa bopp ak sa yëf ak ci sa péey sa ruqi àjjana benn mab ruq caa gën a yaa diggante suuf ak i kaw say ruq yaa ma ñu teey sa jànga may àjjanaa xëy ñoo lef ak terafet leeru yaram neex a gis njaxlaf amul ku ca géey ndaw soo ca teg bët mu dal sam xel te sedd sa xol ngay dëkk ci wax ju mu déeyul dëkk ci wax ju mu déey garab ya sedd na sedd xol te fatt ca kaw taraj taraj duñu am cee ñeeri jant sa xëy këram ya kër goo ca gis day jag ba lëf du ca des biiram ba fees ak i cant ak yëf yu sedd xolee wuntam ya ñoo jekk jub jag sigg yaatu rafet jar gaaju jar jaayi jar sar xol la jar bakkanee laram ya boo ca toŋee yow fàtteloo ma sa toŋ ci kaw ngor ak ngërëmal buurub aras te muccee ñamam ya boo ca musee lu fàtteloo ma sa mus ci ñam wu neexul ku gëm day sant bul tawatee bécëb bu dee bay ba angaaram yi wër ko di wéy jaagam yi wër ko di wéy muy fàttatii su mbayee kuy topp yàlla ba dem firdawsi xeebi jëfam ngir gis lu suuxal jëfam ak lum xelam jotulee labal nu fawu ci yow daal ak sa pii ngërëm nu lat ci yow lat ci sa yiw dellu lat ci sa pii sab sang yow bu ca dindi lëf bu ca def lëfit moo sañ di dindi ci yow lu nekk ka def ci yow lu mu def te neexu la mbaam wax ko te neexu lit ba te rekk tey noppee ka muñ lii gën ci yow sab sang saw sa sa bay ko bay moo xam ni mii dana sedd xol tey seenu jàmm ak wépp yiw loo gis muñal loo dañ muñal loo dégg it bul faale tax taxlul ku raw ngir ñii la aw ab xol bu tàngee lakk ñor bax bay wañax lañu koy teral nag guy yërmande door a ñëw mburu sax bu néewul xamu kenn du ko mos ba bég muuñal te muñ muusal te rës roy gaa yaraw loo dàq yow muusal ba ngëb loolee bu wér loo xes nga bit farlul ba loolee dootu raw bul dàq yow mii loo nga bul bul ngëb la fit muy raw dawal ànd ak ñaraw dul teeñu daw bul yokk bul daw yal na wall ga ñëw balaa ñeexee xërët jam seeni xel njambee ci saw seytaane moo bon moo waral ñay dem taxaw moo tee ña jekkee jóg di wéy bañ a tee taxaw moo tee goney màggal magam moo tee magit biiram gonee ma ka yéene jàmm ka fab ca kaw moo tee jëkkër diiram jabar moo tee jabar di bëggal jëkkër jàmmay la am solo yar na xew ñun ñépp yal na nu jub juboo ku ne raw loram jot ci yiwam faw ak mbégam jàmmam di law buuru aras nun ñépp noo ngi def nu ñuy gërëmante faw ak sax ci jëf joo sant yow dundal ma man dundal sa islaamit ci man jàppal yiwam yépp ndamam tàbbal ci man duggal ci man duggalal ci man barkeeku yiw jébbal ma kun fa yakun fa wan mbooti kun ruggal mu mboolam say njariñ ak say ngërëm ak say dërëm yët noo ki mbéggi yow daala man jógal mu yërmande jëpp faw ak wépp yiw ak wépp tagg ak lépp ndam yaa gën ña gën jógal mu it géppug jub ak géppug juboo ak jëpp jëf juy tax mu am géppug yéwén dakkul mu it géppug mooy ak géppug tawat ak yépp tiis ak lépp luy tax a def lu bon yàggal nu loolit nag ci kaw suuf ak ndigal rafetal nu tey lool ak ëllëg yaatoon ba jëm gàllul nu fam woo xam ni moo sut yépp fam gën koo rafet gën ko mujjit tey woowa fam warlu nu jàmm ak jànnatul firdawsi ak sa ngërëm lu dul dañ yow ki dul fiiroo ku fem andal nu tawféex ak tiraanga ju sax judul ba mukk mukkati bis ju gépp cant ron xital nu yaa di dànn yow yaa dàq jëm mbooleem ña siiwéeg dànn nun fàddal nu ren xitalal nu yaa di dànn yow yaa dàq jëm mbooleem ña siiwéeg dànn nun fàddal nu ren rabu ndangu mboolam rab ya ñuy ngee jooke wut na ca biiram ak muccug ren ak teeweg déwén ku ne yal naa muccug ren ak teeweg déwén te lu man di am may dund faw ak a mucc man ku ñu dudd yal na mbër ma wub jubloo ki ndam ak ndég te jébbal nuy kemam yu ko ëppi ndam ku nu sopp yal nañ yokk aw fanam ak gëmam ak wërsëgam seelub xolam dolli jubam ñun ñëpp yal nañu sax ci ak jubakub juboo ak jàmm tey jàmmoo ko jaamoo koy gërëm ñun ñëpp yal nañu sax ci ful ak teq saa su ne tey gërëm yàllaa ko jëm fa wit kanam ñun ñëpp yal nañu dolli kub jub ak ñu jub ñu lafal ñu seddub xol ñu am njariñ ak xoram gone yëpp yal nañu dund dundal yoonu jub ba ku nekk boppam weexe niw dër jàmmoom man ñëpp yal nañu yokk aw fanakug ragal yàllaa ku yiw ak diine nag ku na yor mbégam